Khalifa Ababacar Sall bi ñu ko laajee ci lu jëm ci wàllum amnistie nee na nag loolee maanaam sàkku ko benn yoon maanaam du demandeur yi wax na ko tamit ci yéen a kaay gi de Le Quotidien ba tey ci journal bi ñi nga xam ne ñooy waa PDS ñoom tim nee nañu sàkku ñu benn yoon li nga xam ne mooy amnistie bu ñu sukkandikoo ci Doudou Wade yéen a kaay gi xëy di ñu xibaar na ñu Khalifa Ababacar Sall nee na jamono ji ma ngi jokkoo ak Karim Wade waaye nag la nga xam ne moom la ñuy bindante ak la ñuy wax ñoom ñaar la engagé ba tey ci bi di Direct News daan nay xëy nag sampay laaj nee na Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne mooy candidat Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Ndakaaru est-ce que nag Bokk Yaakaar waree jàppale est-ce que ñoo noonu maanaam ci ay mobilisation ak wàllum pré-campagne ndax gis nañ Barthélémy Dias waaye Yewwi Askan Wi leader yëpp ñoo ci ginnaaw Barth te nag jamono ci gisuñu lu mel noonu ci ginnaaw Abdoulaye Diouf Sarr ci waa Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba mi est-ce que nag dina campagne normalement est-ce def ñor na ab laaj la xam ne journal a kaay gi sûreté urbaine bi wane na ñaar fukki at a ngi nii maanaam mbàmbulaa googee dafa am li am ci yéen a kaay la turbine mooy kilifa yi ñoo fi waxoon ne danañu fexe ba askan wi seen dund gi daal di ñoŋ waaye ba léegi ni dafa tagga témbee ndax bëri ay gox yoo xam ne ba léegi njëg ya dafa yokk ba maara day taali maanaam askan wi daal sonn gi nga xam ne moom la askan wi sonnoon daal jaaxle ba maara day taali ba léegi nii askan wi ñongo sa amul lenn loo xam ne maanaam a jëm ci wàllum napp gi ci Sénégal jamono ji seen diggante ak Aliou Ndoye mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum pêche diggante ba néexatu la ndax nag syndicat des industries alimentaires ñoom nag ñoo ngi sàkk Aliou ñu daal koy dàq daal koy jëlee ci ministère boobee ndax ñoom dañoo jàpp ne Aliou Ndoye dafa tële gi di l'info nee na moom Aliou Ndoye ni ki démb la demoon ñu ko doon xaymal ab budget ma waaye nag yàq nañu ko musiba ak mbelengaana ndax jàppoon na ñu daal di siy indi ak leerala yéenekaay gi de Le Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu lu jëm ci qualité service bu baaxul bi maanaam téléphone yi waa Free ak Orange ak Expresso maanaam teg nañ leen ay daan ndax nag ñi qualité bi nga xam ne moom la ñuy jox askan wi dara baaxu ci moo tax nag ARTP jël na ay daan yu métte métte lal ko seenu ndotto ndax ñi nga xam ne ñooy waa Sonatel ñooñee nag danañu fay lu toll ci seize milliards su dee nag waa Free ñoom danañu fay lu toll ci ñaari milliards yu fekk bu dee nag Expresso danañu fay benn milliard ak lu fekk yéenekaay gi di Source ak Rewmi yaanamaara ñoom tey ji danañu amal nag doxum ñaxtu université Cheikh Anta bu Ndakaaru la ñuy commencé li nga xam ne moom la ñuy ñaawlo maanaam yoon bi nga xam ne moo jéng ci réew mi ndax ñoom nee nañu mbiri kilifa ni nga xam moom lañ si doxale kumba mu am nday la ak kumba amul nday waaye nag préfet bu Ndakaaru tere na leen mars booba ñoom nag yaanamaar nee ma ñoom caat nee nañu tey ji daal danañu mars par amul kenn koo xam ne mën na leen see génnee yéen a kaay gi di Sud Quotidien na nag àjjuma ji soo moytuwulee di L'Observateur nee na nag médiation dal médiation am na diggante na kuréel gii di jàmmi réew mi ak waa yaanaa maara yaana maara teg nañ lépp ci suufa journal bi nee na ñoom sax tey ji danañu janoo ak taskatu xabaar yi yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na njàng mu kawe mi ji yëngatu na ndax syndicat bii di SUDES ñoom dañoo fas yéene amal gerew benn fan maanaam 24 heures yéen kaay gi di réew mi Quotidien nee na àdduna bi li nga xam ne moo leen di yoot nag baaxul ndax xiif bu méttee méttee mooy yoot àdduna bi am na lu toll ci fanweer ak ñetti ci million ci ay doomu aadama yoo xam ne xiif ma ngi leen di yoota bu ñu sukkandikoo ci rapport boo xam ne waa FAO ak waa programme alimentaire mondial des nations unies maanaam ñoo ko fësal ndax nee nañu nag xiif boobee la waral bokk na ci coronavirus bi ak wàllum bekkoor bi am ci réew mi yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu comité de protection des journalistes ci àdduna bi fësal nañu ab rapport nee nañu nag lu toll si ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti journalistes yoo xam ne tëj nañ leen ci kaso yi ñoom daal nee ñoo leen di xooqutal yéene kaay ñu xëy fekk fa xam ne moom lañ dóoroon nag